mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam di jéggalu bu baax xam nañ ne yëf yi xat na waaye lii mooy suñu liggéey ñun ñëpp li waral tey bis bi ah, bisu dox mbokk la bisu dox jàmm la bisu jàppante la ndax famille yu làmb ñu neen ci suñu biir la làmb du kiy bëree rek làmb ay parti yu bare bari lañuy bokk benn bëgg-bëgg yu muy bëree kenn ku ci nekk nag am foo xam ne nii foofu nga féetee ñii tey ñëw seet si seen xarit seet si seen rakk ci Mamadou Diop Kassé danoon mbër bëre waaye ci biir bëre mu am ci tolof tolof gaañu ci depuis 2013 boobu ba léegi nag mu ngi tëdd ci lal jógul ñii nekkoon ñoom itam ay bëreekat ni ñoom moom mbër lañu woon bëre yàlla defal leen sutura ñi bëre ba bàyyi bëre ñoom Laay Njomboor ñoom Abdul ñoom Daawuda ak euh, Ablaye Sarr ñoom usine doole muy association boo xamante ni li ko commencé palma Tataguine ba Palmarin dëkk yooyu yëpp mbër yi nga xam ne ñoo doon bëre ba bàyyi bëre ñu ne ah ñun kat du ñu yem foofu dañoo war a amal làmb njariñ donte bëri nañ ba bàyyi bëri waaye suñu rakk ngi des ci làmb ji te lii dal kii tey ñun mënoon nañoo dal ci bëree te ba tey sax weesagul mais yàlla nañu ci yàlla musal mooy dund bu jeexul lu nekk xaj na ci ñu ne ñoom dañuy ñëw seeti seen moroom mbër yi nga xam ne dañoo am tolof tolof bii mooy neuvième cas boo xamante ni def nañ ko tey mu dajeek vingtième édition drapeau chef de l'État ñu ne dañuy ñëw seet si seen rakk seet si seen xarit muy kase Diop lay Ndiomboor mi nag moo amoon nee nañ initiative ñu taxawal lii Abdoul xam naa lay njëkk a jox kàddu gi mu wax lan moo waral tey bis bi ñu ñëw seet si ki nga xamante ni moom mooy Mamadou Diop Kassé kase ngi leen di fay bu baax a baax di leen di sant di leen di gërëm Euh, te di ñaan jàmm rek yàlla mi moom jàmm yàlla na ñu may jàmm suñu teewaay bi yàlla na mu bañ a doon suñu teewaay bu jóo te ñu koy fekkee ak jàmm te tal ko tey jii euh, li ñu tax teew fii tey suñu mbokk bi nga xam ne li ko dal ñi tey xam nañ ne jombul kenn ci kaw suuf mais yàlla bu defee sutura tey jii ñu jaar ci làmb comme moom ba mucc si ba taxaw fii ànd ak suñu xel parce que làmb li mu àndal dafa bëri danga ciy am na ñu ciy jaar tàggoog seen xel am ñu ciy jaar dogal fekk leen si lu mel nii ak leneen ak leneen tey jii buñ ci jaaree tey jii ba mën a taxaw di wax doomu aadama yi di ñu déglu dañooy sant yàlla bu baax a baax mais di leen di xamal ne ñun dañ ci jaar bàyyi ko mais suñu xel nekk ci bépp si ki tey parce que suñu jàngat mooy lamb ba liñ ci jot a fekkee ba lamb nekkee ci ay papier ba bés ñu ki tey gis nañu ne lamb mu ngi dox eh, ñi ko yor tey jii ah, ñu ngi leen di jaajëfal mais ñu ngi leen di ñaax ci benn côté bi par rapport lutteur bi balaa muy doon mbër tey dafa am fu muy jaar il faut mu am ay papier yu leer yoo xam ne ñooy mën a tax ba nit nit ñi reconnaître ko ne kii mbër la alors ci moment boobu tey jii bu fekkee ne doomu aadama bi eh, moomul wax dëgg ndogal moomul bakkanam mais it jàmm rek la bëgg comme ñëpp bu ko dogal jotee benn moment lan moo ci taxawaayu ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb parce que nag kii champion la boo xam ne tey jii képp koo xam ne yaa ngi ci entourage wu làmb xam nga ko kon bu ko dogal jotee mu toll ci moment bi tey jii kenn ñëwul kenn seet ko ay mbokkam di daw di daanu lamb ji tey jii li ciy mbër yi di yëngatu liñ ciy dugal as néew fan la leen fete loolu bokk na ci vraiment li nga xam ne xalaat nañ ko bëgg nag wax ko ba ñëpp dégg ko ñuy ñaan képp koo xam ne aussi dégg nga ñu nga xam fan la ñuy waxee waxuñu pour ngañ nit dañuy encourager doomu aadama yëpp di ñaanal ñëpp jàmm parce que nag jàmm ci la lépp xej mais nag mbër mi su nekkee ci ay guddeem dafa am ñoo xam ne ci ginnaaw la ñuy nekk am ñoo xam ne tey jii bu ñu daggee billet stade sagooma tax kon tey jii bu ko dogal jotee waa askanu làmb lan mooy si seen wareef ñun nag comme bàyyi nañu amuñu am am bi pour dox pour dox ci maanaam def ci suñu doolee wax la man pour wax doomu aadama yi dégg ñu xam fan la ñuy waxee ñu tallal loxo képp kuy sénégalais képp koo xam ne yaa ngi ci askanu làmb tey jii te yow xalaat nga ne lii mën nga mën nga koo bëgg ak ñun ñu ngi la ciy xaar ndaxte nag euh, foofu lañ toll tey ñun suñu man-man bu jotoon tey jii kii ñu jël ko dagal ko bi yóbbu ko Europe ñu def ko duñ ci xaar kenn parce que nag suñu wàll suñu walla ngi ci ndaxte bu ñu bëree ba bàyyi xam ne lii jombuñu mënoon nañoo daal te daluñu bu dalee suñuy mbokk suñu mbokk tey lépp lu luñ ci manoon dañ koy def ndaxte suñu association liñ ci jublu amaguñu dooleem mais lépp luñ ci liggéey duñ ko dugal suñu poos la ñuy dundee ak la ñuy dugal suñu poos kenn ku ne yaa ngi dem feneen liggéey ko kon association bi dañ koo sos pour lépp lu ñu am ñu delloowaat ko askan bi. ci wax euh, li may def rek mooy gërëm. Euh, ka may gërëm nag Omar dina ci jiitu puisque lii ba mu amee ba léegi lu ne man lu ne def na ko ci euh, organe de presse la yor wax na ci rajo yi wax a wax wax a wax wax a wax wax a wax ba sonn euh, yàlla nag waxam am njëriñ yàlla na mu am njëriñ bon côté gi may wax nag ñun mbër dañoo sonn waxuma sax ñi bàyyi bëre mais actuellement ñiy bëre dañoo sonn parce que am na affaire yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ñuy ñu ngi koy teg suñu kaw ça fait l'occasion nag profité waale ci pour wax waxal ñi nga xamante ne ñooy bëre tey comment se que yow nga dem wuti licence ba pare yow da ngaa wuti licence fay sa licence fay assurance ba pare ñu ne la boo ñëwee ci làmb ji balaa ngay bëre il faut nga fay xaalis mais loolu ban sport la am ci ban sport la am ci monde bi amul fenn ci monde bi te pourtant tey lit simple ki ko yor ab doomu séeréer la xam lamb mu taxaw mu nangu taxaw loolu di am CNG bi ay jàmbaar lañ mais nag am na benn côté boo xamante ñu ngi lor mbor yi am na mbër mbër pakala lu ne def na ko équipe nationale lu ne def na ko ci làmb muy drapeau chef d'état muy CEDEAO muy lu ne barke dëmb la dem Diofior bëre ji foofu dañ koo dagg vingt mille francs yoo xamante ne teguwul fenn vingt mille francs teguwul fenn ba ci waa CNG jotee ñoom nee nañ teguwul fenn lu ñu ko wax bindal est-ce que loolu jaadu na ñun ñun dañoo sonn dañoo bëgg ñu jàppale ñu foofu rek la amoon lu ma ciy sànni comme affaire bi xaw na naaj Omar ñu ngi lay gërëm euh, Jordan ñu ngi leen di gërëm waa Mbour ñëpp ñu ngi leen di gërëm bàyyi wuñu Mamadou Diop waaye nag ne nañ labali fas tax ta fas raw ñu ngi lépp lu ñu mën rek nañ ko yokk bu ñuy euh, wey nag euh, béy da ngay njëkkee say say tànk waa Mbour la ñuy njëkk a woo muy maire muy politiciens yi fi ne conseil départemental préfet ñu ngi leen di woo lépp lu ci nit man ñu jàppale Ngor si puisque man kii nii mun naa man man sama wàllu bopp mun naa wax làmb ji mu mujjee bëre man xam naa ko jour boobu gànjaay ndag la dem bëre ji xam na bu baax li may wax puisque maa ànd ak sama rakk ndag mu bëre foofu lamb ja jeex mu jàll fu dam dem bëri di pecc ba ko li li ko dal nii ba ko dalee bokk naa ci njëkk a yëg ne gaañu na ñi njëkk a yëg bokk naa ko parce que man côté googu dama fa doon fréquente dama fa doon bëri mais depuis boobu ba léegi yàgg na yàgg na trop. mu ngi tudd pecc boo ñëwee ba Foundiougne ngay jàll dëkk boobu la gaañoo. foofu la demoon bëre ji dafa bëre dafa bëre samedi euh, ndax mu mu jàll foofu dem bëre ji foofu puisque bëre moo ci yaram bi. xol bi it noo ci biir lamb la gaañoo. dafa doon bëre gaañu wala. dafa doon bëre gaañu. li gën a métti mooy ci biir mais assurance bi pour lan la ci biir lamb la gaañoo. gaañawul ci saret gaañawul feneen day bëreek moromam ba gaañu. day bëreek moromam lay bëreel ba jëlee ci gaañu gaañu ci biir géew bi ci biir géew bi la gaaño mais assurance bi pour lan la. jërëjëf sama xol dafa fees. nuyoo gars yëpp rek waaw tey moom wax dëgg yàlla damay rafetlu déplacement anciens lutteurs yi wax dëgg yàlla ndax tamit ñoo xamante ni bokk leen génération ñoom ñoo la njëkk ci làmb gën laa xam làmb tamit jafe-jafe dal la ci àdduna tamit. ñu bàyyi seen lépp déplacé wu ñëw seet si la kon loolu ñooñu mënu a fay xanaa di leen santaat bu baax rek tamit di wax waa Mbour tamit wax dëgg yàlla wuñu ñoom Joron ñoom Jaata surtout Omar Diaw nga xamante ne nii waxuma la rajo télé sax indi na ko pour tamit ñoom satisfaction depuis boobu léegi tamit ñu ngi jéem mais tamit soteegul mais tamit taxul ñu bàyyi vraiment waa Mbour yëpp laay wax amateur yëpp yu Mbour yu Dakar Petite Côte fépp ñu ngi jàpp tamit ñi ngànk làmb noonu leen si jàppee kon feebar bi romb na fii mais nag sant yàlla bu baax a baax tamit yàlla moom mooy teg moom mooy teggi te heure bu ko soobee tamit dina ko teggi mais daal di ni gars yi kontaan naa trop trop trop vraiment ci déplacement bi vraiment ma feebaree ba léegi kenn bàyyiwul gars ñu ngi jàpp amateurs yi ñu ngi jàpp mbëri aussi ñu ngi def seen mën-mën mais tamit comme que lii dal na Birama dal na ma te tamit amuñ benn satisfaction kon mbëri nekk en activité war nañoo xalaat seen bopp bu baax a baax a baax te xam ne tamit lii jombul kenn. ni ma dalee noonu la mën a dalee keneen yàlla bu mu dal keneen tamit mais noonu la mën a dalee keneen ak keneen kon jot na tamit ñu ngànk làmb ñu gëstuwaat mbëri xoolaat leen bu baax baax a baax koo xamante ni yow équipe nationale bu la ma soxla boo yoree sa liggéey sax da nga koy bàyyi dem teewal leen di dem chef de l'état di toj di làmb yu mag yi ba ñëpp xam la tamit boo feebaree war nañ la mën a gestu mais nag tamit xam naa tamit àdduna daal njuumte mënta ñàkk mais nag tamit rectifier erreur tamit du weesu kon nag ñu ngi leen tàllal loxo daal surtout le ministre des sports ak ñëpp nga xamante ni ci làmb lañ bokk ak képp koo xam ne daal war nga ci a jàpp daal ñu ngi nga jàpp ci feebar parce que tamit yàgg na te tamit ku ne xam na ne soutien de famille moom ku ne ku am 30 ans soutien de famille nga war a doon te tamit boo surtout nga yoroon sa métier liggéey nekkoon tamit ci làmb nekk en activité boo demee tëdd feebar tamit soxla nga wiraat nekkaat sa sa yite bu baax a baax a baax waa di santaat ñëpp nag bi may feebar tamit maa ngi ma ngi ma dalee dëkk bi ñuy wax pecc dama jël Sadio ba ci beneen weekend bi ma ñibbisee ma dellusiwaat dem Gandiaye bi ma jógee Gandiaye yàlla pej premier tirage man ak Seke ñoo doon bëri damaa glissé rek tarxiis daanu moomu dal sama kaw loolu mooy feebar bi si biir làmb laa gaañoo te may gaañu sama licence laa la yoroon kon boo boo yore moo am assurance boo gaañoo assurance moo la war a faj mais dëpp boobu ba léegi papier yëpp dem na CNG mais amul benn satisfaction woowuñ ma téléphone tamit seet si wuñ ma kon nag tamit il faut nga yuux tamit bañ dégg métti na yàgg na ku ne xam na ni tëdd feebar benn jour rek dafa métti waxuma la nag presque sept ans six ans et quelque ku ne xam na ni métti na yàgg na mais nag sant yàlla bu baax a baax a baax parce que gars yi bàyyiwuñu ñëpp jàpp nañ wax dëgg yëpp yëpp yëpp famille beeg famille làmb beeg ñëpp jàpp nañ si wax dëgg yàlla surtout les amateurs non jotuma am soxna parce que bu may gaañu boobu maa ngi toll si 30 rek tamit nekkoon ci buntu làmb boo xamante nii tamit amoon yaakaar bu baax a baax a baax tamit nit ñi ci yow yaakaar tamit bu demee nii tamit sant yàlla rek tamit xam ne mënoon naa gën a ñaaw am na ñoo xam tamit nettaluñ problème kon nag sant yàlla rek daal di jaajëfalaat ñëpp kontaan naa trop wax dëgg yàlla ba léegi gis nañ ne yaa ngi di faju ndax tey ñi lay faj wax nañ la yaakaar boo xamante ni tey boo demoon bitim réew walla faj mi bu ñu amoon yenn mooy yi lii mën na wér waaw man personnellement xam naa ne man man naa wér parce que tamit lii kale nit ba nga xamante ni du mën a wér nit dina ko xam mais yow tamit yow miy faju di dem di ñëw boo mënee wér xam nga boo mënta wér xam man je sais bien que ni mën naa wér parce que feebar ma feebar boo xamante ni tamit naa bañ a jógaat gëm naa ni mën naa dinaa jógaat doxaat samay soxla mu day metti mu yàgg mais nag sant yàlla daal te xam ni tamit buñ ci jàppee daal gëm naa ni dinaa doxaat sama yite incha allah